réew mi 24 leen ak euh, jàmm ci euh, xibaar sedi 25 euh, avril 2024. mu mel na nag jëf ya ma ngay commencé di feeñ ndànk-ndànk di diggante aji Sarr ak Ousmane Sonko ndax bu ñu xoolee ki nga xamante ne nag moom mooy Awa Balde moom mi di Awa Balde ñu bare ràññee fii ci réew mo Sénégal émission ba nga xamee ne nag doon na ko def ca 2STV moom ak ki ñuy woowee rek euh, Cheikh Sarr moom mi nag di Awa Balde ginnaaw ba ñu yëkkatee ay kat rek di xamle ne moom mi di Awa Balde moom la ñu doon joué le bi nga xamante xamante ne rek moom la Adji Sarr doon joué contre mu mel ne kon loolee eh, Adji Balde Adji eh, Balde mi bañ ko ko joué Awa Balde bañ ko ko joué loo mu mel ne rek moom dafa daal di eh, bañ bañ boobee nag mu bañ loole waraloon lekk mënatul am jàmm ci réew mi kon daal di nay nag xolom tooy ba nga xamee ne sax eggalewul émission bi ci jëf jooju nga xamante ne rek naroon nañ ko ko defloo waaye moom mu daal di bañ mu mel ne kon aji Sarr mu mujjee accepté daal di def loolu ngir rek mën accusé ki nga xamante ne rek moom mooy le premier euh, ministre Ousmane Sonko euh, viol boobu nga xamante ne daal nay nag euh, métti woon lool ci réewum Sénégal yóbbu ko ci guuta gu métti mu mel na sax ay bakkan jot nañu ca rot mu mel ne kon ña nga cee dellu si waat ma ngay feeñ si ndànk-ndànk ndax kot Awa Balde mii moom ma ngay xam leen rek moom rool boobu ay million tiitalu ko benn yoon luñ ko mën di fayet du ko def ndax fëkk yóbbuwu ko kon mu mel ne kon Adji Sarr moom moom moo daal di joué nag boobee la rôle waaye kon jigu ko ndax kat fi mu toll ni sax moom daal di nay daw rek génn réew Sénégal mu mel ne kon Awa Balde ma ngay wax na rek jàmm rek moom moo wóor fi ma toll ni daal maa ngi am jàmm maa ngi am liberté kon mel ne kon aji saar moom fi mu toll ni moom liberté gi nga xamante ne rek euh, bëgg na ko mënu koo am ndax kat ku ne xam na ne jamono yi ñi ngay wax rek ne génn na réew mu Sénégal dem foofee ca siwis